ça donc ñu ngi fii ci huitième édition Galsen Hip Hop Awards donc ñu bëggoon xam déjà sa teewaay est-ce que c'est la première fois wala depuis début bi depuis première édition bi yaa ngi fii ak relation ak Waydi. waaw maa ngi lay fay bu baax. Alors euh, je vais commencer déjà par Waydi la personne en question. Euh Waydi c'est d'abord un grand frère. C'est d'abord un grand frère. Alors le mouvement du hip-hop déjà euh, je pense qu'ils m'ont tous vu grandir. et c'est normal que j'ai de bonnes relations avec eux. Donc euh, YD, mis à part le Galsen Hip Hop Award, je me dois d'être là en tant que petite sœur déjà. Et ensuite, euh, voilà, c'est ça, c'est normal que je sois là. Ouais. bu bay di jëlal ma sañse bi nii lay tàggoo nga xool sañse bi si si kaw ba si suuf waa mais kan moo génn si si si sañse bi ak lan moo tax nga laaxatu tamit voilà. Euh, laxatuuma laxatuuma en fait c'est beaucoup plus que boy c'est vrai liggéey bi j'ai un salon de beauté c'est normal je suis beaucoup plus dans le relationnel j'adore rencontrer les gens causer avec eux et en même temps c'est même pas ça c'est que dama yàgg ci milieu bi tamit sama genre yi dañoo war a garer de temps en temps c'est pas que dañuy teggi sa tànk mais de temps en temps tu peux mettre le pied mais dañuy xajal suñu rakk yi Donc il y en a plein, a pas mal. Maintenant il y les réseaux sociaux, avant. Et je pense qu'on se doit de, céder la place aux plus jeunes en fait. Donc de temps en temps on peut venir, on les accompagne, mais ñoom ñoo fi nekk te ñoom ñoo gën a sax. <laughs> donc béy de jëlal ma sañse bi kan moo jaar si sañse bi. alors dama am sama frère bu tudd Abdou Diop dafa am ce matin il est original donc euh, il s'est occupé de moi rek xam nga boo laalee tuuti tissu traditionnel moi j'aime bien quand c'est traditionnel ñu moderniser ko tuuti rek ça va. Merci. bi yàgg nga si kenn musul dégg bel nii wala nii wala ci ay problème donc ban conseil ngay jox jeunes nga xam ne tey bëgg nañ dugg ci showbiz bi ci mode bi ci li nga nekk. alors conseil je sais pas si je serai une bonne conseillère xaw ma ndax dinaa mën a conseiller bu baax mais. Euh, li ma bëgg a wax c'est peut-être si j'explique un peu mon mon passage c'est que j'ai su faire les cours et la publicité en même temps j'ai commencé à l'âge de 7 ans donc ça plus de 20 ans Et donc, euh, j'ai su avoir mes diplômes après le bac en même temps que la publicité. Et je ne suis pas mannequin, bon, je suis modèle. Alors, euh, j'ai su faire les deux en même temps, donc quoi donner comme conseil je, je, je, saurais le dire en fait. Mais il faut que moi, me foule. Djang de Chibok, bien sûr, faut pas être ignorante. On peut pas être une soie belle et tais-toi, en fait, c'est pas possible. Faut refuser de l'être, mais foule. Et en même temps, tant qu'on a le soutien des parents, bien sûr. Parce que moi, j'ai ma mère derrière moi et mon père qui est décédé, bien sûr, il a toujours été derrière moi. C'est lui qui m'a mis sur le droit chemin. Alors, je pense que maintenant, Gourgourlo, parce que les, les filles, les jeunes que je vois maintenant dans tous les réseaux sociaux, avant, c'était pas comme ça. Mais bon, on est tech full déjà. Et voilà. Mais par contre, ces histoires de buzz et tout, c'est pas mon délire. Euh, je, montre pas ce que je mange, là où je mets les pieds. Mais c'est marrant. En fait, le truc, je pense que le secret, c'est montrer ce que j'ai envie que les gens voient déjà. Et puis le reste, ça va. Mais bon. Allez, bonne Merci.